Mouhalim info di groupe information générale internationale ba tax mbooleem xew-xew buy xew ci biir réew mi ak ca bitim réew man ngeen ko fekk ci sunu chaîne YouTube bii di Mouhalim info doxantul ci YouTube bi nga tàppe Mouhalim info bul fàtte nag abone bés kolos bi ci sa loxo ndeyjoor lii mooy waral dara dootu la raw ci liy xew ci biir réew mi ak ca bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu kaddu gi bàyyi ko fii ci seen chaîne bi di Mouhalim TV Aïssatou Faye doomu Mansour fay bi waa BBC defar ci moom benn reportage fan yi la ñu weesu juróom coow lu bare bari nag ci penc mi boobu ba léegi daal nee ñu def ne woon cell rek waaye tey jii ci alxames gi nag moom ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril 2022 jóg na ngir tontu internet yi wala boo ko doon dal ci koom daal Sénégalais yi tontu bu gàtt sax nee ñu moom mii nga xam ne doom la ci Mansour Faye gorow président de la République du Sénégal moom mii BBC doon def ci moom benn reportage doon wane daal ne moom dañu war a jël exemple ci moom. yor gi géré benn gétt goo xam ne laa lu toll juróom fukki nag ba la ko ëpp tuuti nag yoo xamante ni itam nag yi bàyyi koo fële la ci réew tugal ya di produire mais mu bare bari am ci itam ba tey ca gétt ga benn partie boo xam ne dañ fay defee production aliment dañ fay transformer aliment bi am itam beneen partie boo xam ne dafay transformer wàllu meew bi nga xam ne sax moom am na ci benn markam bu ñu wax jaar yi loolu nag bu buñ ko ma ci koppar mu nekk ay téeméeri téeméeri million mu jaaxaloon lool ñu bare bari xale bu ndaw yàggulee génn ci école comme ni mu ko waxee moom xale bi ci biir reportage bi bi mu génnee ba jàng itam ba ñëw liggéey liggéey bu gàtt rek ci milieu finance bi kon nag daal fan la war a jëlee ay centaine million millions bu mu war a monter euh, entreprise bu ñu toll waral nag coow lu bare bari ñu bare bari nag lëkkale woon ko ak li bàyyam nekk gorow président li bàyyam nekk ministre waaye daal boobu léegi moom daf ne woon cell rek tey ji nag la jóg pour tontu sénégalais yi ne na daal man dama jóg pour partici participer développement sama réew waaye participer itam ci euh, transformation laitière ak sama marque bi ñuy wax jaar yi ñii dal sa am na itam euh, ñu may encouragé ay messages yu bare bari bàyyi ko fu nekk ci àddina bi te ma encourage ci lii may def waaye itam ñi ñi doon ma ŋaññ ak a xarab maa ngi leen xamal ne lii ab ndorte lekk na man daal lii commencement képp la man ah, sama yitte du li du lii lii daal ndorte rek la man sama yitte mooy réussir daal la vie Mouhalim TV